lii lépp nag ki ñu ci gunge mooy Serigne Abdoul Aziz jaw du nit yàlla ku màgg ku ma kilee di borom rus na maa xam góor muy am gàcce ci kaw lal rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci mystique rus na maa xam nit ñu di ko xeex ci baatin waaye rus na maa xam nit muy dellu ginnaaw rus na maa xamanteeg nit ren ba déwén gaa ñi di ko yërëm kooku mooy Serigne Abdoul Aziz Diaw ay numéro mi ngi doon di affiché ci baro écran bi ngeen mën a jokkoo ak moom lépp luy fajum palant lépp luy ñaan yàlla jokkoo leen ak Serigne Abdoul Aziz Diaw. gannaaw ba 9h jotee ba teg 34 minutes fële ca Popenguine ak li ko wër asalaamaaleykum. jaajafal nañ leen bu baax a baax ci ànd geeg bàyyi xel geeg leeru jamono seen émission bu mag bi lee dellu waat na tey mooy numéro bi mujj ci semaine bi lee ngeen ànd ceeg ñun Euh, jaajëfal bu baax a baax Mamadou Makhtar Sarr mu daal di ñuy jottaleel nuyu bi ci correspondant yi Walfadjri yi nekk ci régions yi bu fa jógee nag euh, jaar ci groupe yi nga xam ne ñoom it durant semaine euh, yi jàngeen jëf sama gars yi Alaaji Katim Cissé Ilimane Diop Cheikh ñoo bokk ci groupe yi taxaw ci turu Walfadjri Baye Assane Messe rek Mouhamed Sylla ak Abdoulahat Ndoye ak Ahmadou Bamba Dieng Bamba fépp Serigne Ibrahima Diop ñooñu ñoo fare ci enregistrement yi ak partage yi jàngeen jëf sama gars yi Abdou Top nag moo nekk fële ci production Sa Ndiogou moo ñuy séddaleel Alaaji Sa Ndiogou Mbeng mi ngi ci studio bi ak euh, ma jigéen Diop xalifa général kull kuy lekk tool kull kuy sàngoo ko wet Alaaji Sa Ndiogou Mbeng xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdou Lahad Mbacke ca Touba di xaritu Serigne Daara yi Alaaji maa ngi lay nuyooti. sooy bi ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm. jëf waay euh, di dem ba Touba Mbacke di di xaj général des Mourides hmm. di ko ñaanal jàmm. di nuyu sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. di ko ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ñu koy ziar bu wér wér Mbacke di nuyu bu baax nag. sëriñ Xaadim Fall nekk ca kër ga. waaw di ko nuyu di nuyu bu baax. ki nga xam ne moom la ñuy wax sëriñ Abdou Karim mbàkke borom Makarim wax laa di nuyu kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp. waaw ñu ngi lay ziar. di dem jéen non jéen bokk ci kilifa diine maa ngi naan jéen kilifa diine yi dugal dugal jéen ci diggante bi jéen du jéen ah ji du ko jéen jéen ko ci kilifa doo kilifa diine waaw di nuyu bu baax a baax wala jaam na toog ga ba boole ci ëmb boobu escroc tool <laughs> di nuyu bu baax a baax Ibrahima mais aussi tamit di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp lew nañu seen Medina Baye Tivaouane Ndiassane Laayeen Cenaba Andulaay ak waa Jaamal di nuyu bu baax a baax tamit euh, ki nga xam ni moom la ñuy wax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu bu baax Serigne Medoune Sey borom taw feex waaw di wax nii di jaal sunu euh, mama boobu nga xamante ni bii moom lay na ba Fall. waaw maman ba faal ku mu faatule nga xam ni taawam. bu oh góor moo gaañu. taawam bu góor euh, moo gaañu ma nga gaañoo ci Amérique. maman Dieynaba Fall ñu ngi lay jaal euh, sunu. mag jooju nga xamante ne bi vraiment euh, maire bi maire la boo xamante ne bi sama maire la di maire bu baax hmm. ma jay na ngi koy jaal bu baax a baax hmm. euh, di nuyu ma jigéen li nga ci wax noonu ci wàllu lekk tool hmm. léegi ginnaaw fi mu toll nii ñiy livrer assiette yi la bëgg fi mu toll nii temps yi ñoom ñoo xew fi mu toll nii la ko bëgg a kal waaw <laughs> ay alaaji sama livreur sama livreur bi alaaji sama cag-cag wax naa ko mu bër ba ci kanam bi xaar parce que <laughs> mën ma jigéen léegi cag-cag yi lay wër <laughs> <laughs> maa ngi leen di fay. di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp nag di ñaanal euh, doomu. waaw maman Dieynaba Fall waaw yal na yàlla atte ko si yërmandeem amiin amiin te tabal ko àjjana mm, ñu fi nekk nag yàlla bàyyi ñu fi ba si kanam ak kanam ak kanam mm-hmm, mm-hmm. Euh, di nuyu waa Thiès benn dëkk ñaari gaar ñu leen ziar leen di nuyu waale tam euh, way jur bu jigéenu euh, oustaz Souleymane moom nee na chaque jour daf ñuy teewlu ah, di ñu déglu waaw démb ñu ngi jokkoo oustaz waaw nee na daf ñuy teewlu saay su nekk du rate émission bi ñu koy ziar bu baax baax mm. nuyu suñu mbokk bawol Bawol yi mm-hmm. ak waa mm-hmm. ak waa Saloum euh, sama xarit yi nag nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi mm-hmm. mboolem sénégalais bu nekk bitim réew muy góor muy jigéen samay soppe lañu maa ngi leen bu baax a baax fu nekk lañ ñuy dégloo di nuyu ñu nekk fii yëpp Ibrahima Lo ak Diène ak Ëmma xaritu Bawol Bawol yi moom tamit euh, baykat yi maa ngi koy nuyu bu baax am fi bouton yeeg ak bu ko dindiwut man ndax bët dina seet bi <laughs> maag maxanaa mii ndax bët dana seet bi alaaj lu ne ci maxana bi waay waay waay bëgg anticiper maxana ah jiw wi ah. jiw wi la bëgg a jël bu gaa di séddale jiw wi bay bàyyil ëmma ëmma jiw wi lay def ki yam defi dolli ci la def xalaatam alaaji bàyyil ëmma ak waa Facebook bi tamit ñu ngi leen di nañ partagé ma nag Walf FM 99 point 0 bu ñu duggee daal kenn ku nekk partagé ko ci sa page nga def ko statut groupe boo bokk nga dugal ko fa bu dee bañu ñu lien dugg fa hmm. aja sama gars yi partagé leen gaaw partagé leen euh, ma nga kon gërëm ko bu baax ma jigéen euh, wala bokk ñaanal ko bu baax ki nga xam ne mooy doomu soxna mama Dieynaba euh, Fall boobule ñu ñu gën ko xam wax di yàlla Sénégal bu ñu ko xamee lu ci ëpp ndongoloo ci la bokk hmm. ci ay waayam daan nañ ko dégg kon ñu ngi koy ñaanal bu baax doomam jooju dem yàlla na ko yàlla wuutal leneen Euh, ñu ngi jaajëfal euh, Babacar Ndaw itamit mi ngi annoncé Diine J FM fële ci Kaarang 94 point 1. Mm-hmm. ñoom dañuy synchro ak Jommet. Mm-hmm. ak euh, jokkul xam ñaar rajo yi alaaji bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñ. waaw ah, c'est bien ci synchronisation bi. Mm-hmm. jaajo sëñ Babacar Ndaw ma jigéen tey ñamale gi de dana ci bokk daal Ayda Ndiongo mi nga xam ne daal macha allah am na fu mu jaaroon nag waa ji fi nekk ci xeetu daal woo woo mu ñëw ñu leeral alalam fu mu ko jëlee gi ni mel. gannaaw ba nag ba mu génnee daal Aida nee na nag may leen ma ma yeggale ci wax ja wax ja nag la ngeen ci xamul mooy liñ ma tëj lépp président Sall mu doon joxe dépense ci sama kër loolu daal kii nag ma nga nag léegi ca benn bokk yaakaar nee na saraax ca biir bugaan ngay dani njiital gëm sa bopp di mouvement boobu la daal ginnaaw bi nga xam ne am na kàddu yu yëkkati woon ba Sénégal yi bare bare bari àddu nañ ci man mii laa bokk gannaaw ba nag bugaan génn def ay leeral indi na benn précision boo xam naka précision lañ koy waxe précision maanaam préciser na ay waxam daal préciser na ay waxam na ay waxam daal alaaji bàyyi ma maanaam maanaam indi na maanaam préciser na yow alaaji yow moom maa la raw alaaji yow alaaji noppil yow alaaji yow ñu dàq la maar waxal préciser alaaji bàyyi préciser na ba préciser alaaji préciser boobu Assane na sere danañ rey nit ñi wala lay yekk yaa sise ñu ngi am site boo xam ne mënuñu wax tudd ba ah. <laughs> am na ñu naan CCBM de mën leen mën leen mën leen ay bu leen fi waay bu <laughs> leen sëriñ bu fekkee gar xam ngeen daal CCBM <laughs> ay noonu loolu alaaji gaa yi koy wax de CCBM man leen loolu sëriñ buuba ko moom de bàyyi leen CCBM g la léegi alaaji Bougane Gueye moom àdduna ci ay waxam daal di indi ay leeral nee na nam ko bëggoon a waxee daal bëgg ko woon a waxee noonu gaañu ñoo ko indi ay gëllëgoose Bougane Gueye dani Mm. ay propos yu claire la yu mënul prêter ci benn équivoque dama ne président ku mu woo nga yor stratégie la plan bu mën a dimbali xale yi Sénégal ngir ñu am liggéey bu la woowee laaj la xalaat war nga koo jox sa xalaat mm. ko joxul sa xalaat ça veut dire que yow sa bopp moo la yitteel waaye bu Sénégal ma ne man Bougane bu ma président woowee laaj ma sama xalaat fii ak fukki fan ma war ko ko jox dama koy jël jox ko ndax bu ma toogee di xaar ba deux mille vingt quatre pour dimbali gone yi ñu am liggéey bu boobaa ça veut man sama bopp ma tax a jóg waaye du liggéeyal Sénégal moo tax a jóg donc joxe xalaat ak dem ànd ak moom liggéey du benn mais ña ko wax ak ña ko bind ñoom ñoo xam lu tax ñu bind mooy képp koo xam ne doomu Sénégal nga yor xalaat bu war a defar Sénégal bu war a dimbali jeunes yu Sénégal moom président bu wàccee boppam waxuma àndandooy liggéey booy àndandoog nit di liggéey ci biir gouvernement dafay fekk ngeen méngoo xalaat wala moom mu nangu ñëw jël yow li nga xam ne moom mooy gis-gis doxal ko maanaam sa programme man encore je ne suis pas demandeur et mon président woowuma laajuma encore une fois moom la fal te du ñun ñoo koy war a jox sax nag xalaat boo xam ne moom war na cee defar réew mi war naa yor xalaat mooy lu nit mënut a def ci juróom-ñeenti at du ci ñetti at la koy defe loolu mooy suma xalaat kon bu kenn wax loolu lu ma waxul. mi ngi noonu wax na ko ci biir nag je ne suis euh, pas demandeur moo ko wax daal ci biir moom Bougane Gueye Dany daal nee na wul laajul yittewoowul président di ko recevoir. waaye nag ma jigéen wax ji ak li muy wax yëpp uh, wax na ci ci fin bi nee ña bëgg bind ñoo bind ña bëgg wax ñoo ma waxal waaye defe naa gars yi interprété wuñu ay waxam la buggaan gay wax la ñu teg uh, kii bi jàngat ko ginnaaw bi ma waxee daal daan ni uh, suñ ma laajee xalaat boo xam ne fii fukki fan la du ma bàyyi ba ñetti at di ko soxoree sama samam réew loolu daal la buggaan gay dañuy wax nag tey lii la ci tegaat nee na waa ji woowu ko ay waxam la doon wax mm-hmm. waaw waaw bu balaa ñu ñëw si coow Bougane bi. Mhm. dañuy wax euh, euh, li nga njëkkee muy euh, ayda Diongue. Aïda Diongue waaw. man de jàpp naa ni li mu def bettuma parce que yàggul dara jotoon nañ fi sax si comme ni ñu koy defee nii waxoon nañ fi si ay waxam parce que génnoon na fi temps yi li passé donc tey jii nii suñ demee ba léegi nii dafa rallié wu dem ànd ak ki nga xamante nii moo di président Sall hmm. warul bett kenn. Mhm. waaw parce que doxalinam wane na ko mais nag bu nee daf koy jàppale di jàppale koo xamante ne nii man amaana ñaari at rek moom moo la fi dese man defe naa ni daf may daf may daf may gën a jaaxal parfois nag war nañu bàyyi diw defal na ma teraanga rek mhm. dama ko war a fekk si sur ah, mais dépense nag ku la ko doon joxeel nag diiraa lañ lay tëj boo génnee ma jigéen war nga koo def lu baax baax na def lu baax baax na li mu def noonu. Hmm. fu dëgg yàlla man maa ngi koy rafet. maanaam joxel ko dépense daal. joxel ko dépense. ku ñu tëj kay nangu sa xaalis. ko joxel dépense. mooy yoon waaye nag warul tax mu fekk ko si li nga xamante ne nii yow. ñu bëri si ñoom dañ ko doon ŋàññi hmm. kon bu yàggee danga nga naan est-ce que nekkul alal ji mu juñ ko jëlaloon hmm. moom la bëgg a dem récupérer moo tax mu bëgg a euh, ànd ak moom parfois ànd yi soo gisee doxalin bi rek danga naan lii nekkul lu sincère intere kese moom moo koy lal te loolu nag la ñu war a bàyyi. Mhm. parfois surtout nga nekk mag yow moom PS la njëkkoon nekk. après bu ñëw ànd ak lay wàdd mhm. après nga ñëw rallier wu si Macky Sall. Mhm. donc dafay de mel nii rek moom ku ñëw rek nga ànd ak moom. te sénégalais yi soxlawuñu loolu dañu bëgg nit koo xamante ne nii terewuñu kenn ànd ak kenn waaye nag nay doon loo xamante ne nii hmm. lu dëggu la ba ku ko dégg hmm. du si mën a wax dara loo xamante ne nii lu ñaaw la bu dee xaalisam la bëgg parfois li nit ñi naan su fekkee dañ laa nangul sa alal rek ñoom hmm. en général sax ñoom ñoo la naan tant que ñëwoo sa alal ji nga bëgg doo si jot léegi nag suñ la forcé ba nga dem nag léegi nag képp koo xamante ne nii soppoon na la baa mu bëgg la baa mu toppoon la ci say principe daf naan intéret ma tax mhm. waaye nag lépp lu si mënti am rek ñoom la rek parce que mhm. am na suy droit ku nekk am nga droit nga far fu la neex euh, coowal Bougane Gueye dani mhm. man jàpp naa ne ñi bind ñoom ñooy responsable yi parce que moom bi muy wax ah gars yi li mu wax lañ bind de ah non après niñ ko tiitre boo xoolee titre yi man liir naa ko dañu ne Bougane pare na pour dem jàppale ma Sall te Bougane nee na non non non Bougane nee na su fekkee daf ko laaj xalaat. si ngir jeunes yi nga xamante ne nii dañ fi nekk amuñu liggéey. mu pour mu doxal loolu. Mm. dina ko si wax xalaatam du xaar ba deux mille vingt quatre mu bëgg mu bëgg a falu mu leen koy doog a wax parce que nee na bu boobaa mm-hmm. dafay nekk koo xamante ne nii dafay soxoree ndaw ñi mm-hmm. man jàpp naa ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo bind te président bi nee na carrément dinañ xoolaat lépp loo xamante ne nii jëm na ci wàllu média ñiy bind tamit nañu war a bàyyi xoolaat bu baax a baax nit ci ni ñuy bind parfois sax da gis dugg si benn page nga dis titre boo xamante ne nii boo duggee ba si biir sax mm-hmm. la taxoon yow nga dugg si biir ba xool gis titre bi ba dugg si biir boo duggee doo ko ci fekk loolu nag la ñu war a bàyyi di jël waxu jàmbur di ko interpréter neneen parce que tooñ la li mu wax ak li ñu bind wax dëgg yàlla man gis naa ni amul amul lenn loo xamante ne nii rek lu lu jaar yoon la li mu wax ñëpp dégg nañ ko nee nañ carrément wax sa xalaat wa teewul nga bañ a ànd ak nit ki joxe xalaatam rek macha allah mm. bugaan <coughs> mm-hmm. ñi ngi koy koy ziar euh, di nga xam ne àndoon nañ di ko xeexle ah. ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko parce que li wax. Hmm. dafa am ñu bari ñu doon xeex. ne niñ ko tëjee du yoon Macky Sall la ko tëj. Hmm. tëj ko c'est parce que ay da jong lii ay da jong laa ñu bari loolu lañ wax. Hmm. mu xëy tey ne Macky Sall la ma doon dundal sama njaboot biñ ma tëjee. et pourtant daan na dégg nit ñi di ñaxtu. di wax ni Macky Sall la ko téye. loolu yàgg nit ñi yàgg dañ ko wax. ci kaw mu wax loolu nag hmm. ak ci jamono ji mu ko waxee hmm. dafa am ay mbir yu mu bëgg a leeralaale ci wax jooju wax jooju dafa leeralaale leneen hmm. que ni justice bi Macky Sall yoonam newu ci loolu dégg nga ko ci wax ji parce que bu nee la waaw Sall moo moo doon joxeel dépense dafa mel ni kon Macky Sall ñeewantal na ko ci tëj ba noppi di ko di ko dundalal ak njabootam kon da cee mënut dara loolu la wane maanaam raxasas na justice nit ñi li ñuy wax ne justice bi euh, loxob njiitu réew mi da cay ne mhm. moom daf ñoo wan nañu justice bi loxob njiitu réew mi newu ci te mënu ci dara mhm. justice bi mooy liggéey liggéeyam ku ñu jàpp justice la jàpp mhm. amut lenn loo xam ni président da ko cay manipuler loolu mooy li ñu ay da jong wane na ni daal justice bi dafa indépendant waaw loolu la ñu wan quoi moom lim ñu war li mu wax nii mhm. wax ji loolu day firi loolu quoi boo déggee wax ji bu fekkente ni déglu nga wax ji si si loolu la wax ji loolu lay jàngale waaw ah, dafa jaf ñu jàngalaale leneen ci kaw wax mhm. non seulement demut kese dem gi lenn la mhm. mais raxasaale na Macky Sall képp ku koy taqal ne ko mooy manipule yaay manipuler justice bi pour wane ni bu mënoon a manipuler justice bi kon da koy génne. waaw waaye du ko joxeel këram dépense. Ah, waaw. waaw loolu la ñu bëgg waaye daal doon na ma joxeel dépense. Ah. waaye daal dafa ma dafa bàyyi woon yoon mu liggéey. waaw dafa bàyyi yoon mu liggéey liggéey. munut daal mënalut dara yoon <laughs> donc yoon a ma tegoon loxo. ndaw si kii koy. loolu mooy li nga xam ni. moom la Aïda Ndiongue wax. et boo déggee ma ne la ci jamono ji mu ko waxee mooy jamono ji nga xam ni. Mhm. nit ñi dañuy wax ne justice bi dafa war a indépendant. Ah, Aliou Ndao loolu la waxoon gis gis nañ fi lii gis nañ fi lii. ñu gis tamit ka nga xamante ni kii mooy Aliou Ndao daa dee génn. Mhm. wax la mu wax ci jamono jooju ci la Aïda Ndiongue wax wax ji kon donc. Mhm. Euh, paaka ñaari boor la. maanaam ci mbir mi. Bougane nag. mbir mi. waaw. Euh, wolof dana junj doy na borom xel. te wolof dane kuy lijjanti li ndaw di wax ne kuy lijjanti yaa ngi lëjal mhm. dafa ñëwaat ngir leeral waaye dafa gën a lëjal ah li ñu teg maanaam leeral bi ah. lëjal la alaaji na waaw na xam nga bugaan li wax waaw dafa ne hmm. su ko bu fekkente ni bi maanaam ki yore réew mi hmm. su ko laajee xalaatam hmm. mu jox ko xalaatam moom te pare na moom daal. waaw. xam nga balaa may laaj son yi bu xalaatam. Hmm. xanaa dina am yenn mbir yu xew. dëgg-dëgg. dina am ay relation yu am ak yenn yu am ba tax ma war ko maanaam lii nit ñi dañ ko jàngat ne bunt la bu mu ubbil. Hmm. président li nga naan clin d'œil. genre clin d'œil pour wan ko ne ko man kat. Hmm. pare naa pour. dialogue wax la li ma xalaat ci réew mi. ñu toog ñu discuter ci. waaw. loolu la loolu nag pour man loolu mooy li nga xamante ne bii moom la gars yi bind. waaw li gars yi bind lool la. yokku ñu de wax dëgg yàlla. mooy wax ji man lii firi wax ji léegi nag moom ci biir wax jooju mu ñëwaat di ne day leeralaat ci li mu wax. Mm-hmm. mi ngi la jëlaat li mu wax parce que li mu wax bon man jàpp ma ne am na dara lu lëndëm quoi nit ñi nag mën nañu interpréter gis-gis yi mën nañu wuute nit ñi mën nañu ne waaw pour mu dem joxe xalaatam am na ñu ko tëkkaleeg. Euh, jamono ji nga xamante ni bii mbas mi ñëw na euh, ñu woo Idrissa Seck. Mhm. woo ki nga xam ni moom mooy kii. mais ñooñu président moo jékki-jékki xam ni ñii da leen war a woo mais ki toog ne man bu ma woowee. waaw bokkut ak ki nga xam ne dañ koo dem woowi ko. waaw dëgg-dëgg. ne ko ñëwal. dëgg-dëgg. mi ngi mel ni ma toog. waaw ne man de bu ma président woo bu ma buñ ma woowee. Mhm. moom mi yor cëggal guy nga xam ni moo yor lépp. pour Sénégal dox. waaw buñ ma woowee ci lu mën a décanter situation bi. mais yaa ngi wax nit ki woo ma. waaw dëgg dëgg. <laughs> mais amul leneen. taxul nga ànd ak. mais waxuma tax na mu ànd xam nga. bugguma ci commentaire mais li mu wax rek nañ yem. ci li mu wax ci li mu wax li mu wax loolu lan lay firi. waaw ci koo xam ne woowuñu la. waxtaanee wuñu la waaw woowuñu la ñee dañ leen a woo. voilà bi ñuy woowee Idrissa Seck. woo ñi nga xamante ni bi ñoo leen ko woo Idrissa Seck Ousmane Sonko woo leen ñoom ñooñu ñëpp boobu président moo ne kat réew mi situation bi critique na naa woo opposition bi ñu jàppale ma ci mbir mi. Mhm. moom moo leen woo mais bu doon opposition ñoo toog fene bu ñu woowee de ñun ñu ñëw jox ko suñu waaw kon dañ naan bëgg nañ dem. dañ naan opposition bi léegi luñ bëgg a def ni mhm. waaw mais moom moo leen soxla woo leen. parce mhm. que président ñaata conseil la bari na am na ñu ñu ko mos a ñaata nit la ñuy fay. Mm. ñoo xamante ni bi dañuy taxaw ñaata nit ñoo génn ne dañ ko doon jox suñu xalaat jëfewu ko. waaw te mi ngi leen di fay te ay conseillers. am ñoo xam ne am sa am sa saw Sidibé. waaw lu mu fi waxoon <laughs> mënatu koo gis. ministre conseil la woon. te ñaata nit a koy conseil mun leen gis. yow leen nga taxaw nga ne euh, seek tamit buñ jéem a ndax nit ñi. quand même ñaata conseil la ko yàgg a jox. voilà te mosu koo jëf bu ñu jéem a ndax nit ñi quand même xamee ba léegi mi ngi dénoncé ay faits di wax mu ni man buñ ma woowee léegi moom bu fekkee moom am na fu mu waxee <laughs> na mu waxee ne ma woowee moom gis na ni situation sàngam na développé mu war a wax président dana ko dégg soxla wut euh, soxla wut dem soxla wut parce que ma jigéen su ma toogee fii Far FM mooy ci suuf ma ni waa rajo Far FM de buñ ma woowee dinaa leen wax sama xalaat du ma toog ba ginnaaw suba ma leen ko wax suñ ma woowee tey ma dem te Far FM suñu ma faa tudd mm. xamuñu ma lijjanti wuñu ma diwoo woo saa njóg ñeneen ñeneen kon daf mel ni man damaa bëgg ñu woo ma. client ah, day la daal. Ah? Ah, daal il faut que. ñu xam ni. Euh, nen daal nen la. bu ñu fi nekkee nag naan non nii. da koo omelette ak da koo baxal lépp nen la rek nen lañ ne. ki ko daal li mu wax wax dëgg fa yàlla. Euh, loolu li mu wax moom moom la moom la gaa yi bind. ayca ma daal leer na nuyu waa Far FM bu baax man ngeen ko léegi télé bi incha allah euh, Walf TV man ngeen di ko am ci Far FM 93 point 6 bu ngeen ci kii rek yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk foo xam ne amu leen rajo bi amu leen télé bi mën ngeen a jàpp 93 point 6 lépp luy jaar ci rajo bi di ngeen ko am incha allah foofu la ci 93 Far FM ma jigéen Diop ma jigéen ñu ànd dem Kaolack nag comme démb dañoo jëloon kii bi affaire yi duut ma tey ah, Kaolack lañ jëm Baye Assane Messer Kaolack waaw Baye Assane daal tey nee na coow ba Kaolack fekk fa benn waay boo xam ne daal jommi na. salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen ngi bàyyi xel émission bu mag bi di jommet mu mel ne que ni am na benn jommet bu ñu fi amee. ku baax ki noo def. maa ngi la doonoon sa yitte. dama amoon benn cas daal boo xamante ne daal daf ma yéem daal. waaw dama bàyyi woon sama benn ci wàllu daa yëngatu. ah. eh Alaaji Alaaji xaaral rek Alaaji eh, Alaaji mi mi ngi nii. ñu wax. ah, ah jaxase carte ba noppi kii mu mënoon rediviser. waa laaj élément baa ah, yi nga ni a ngi bàyyi xel émission bu mag bii di jommet soxna am na benn ah, bi de mooy. support Sénégal bi. am tuwaal ci biir. mu leen liggéey Sénégal du am tuwaal xam nga ci biir léegi sukar bi saako bi noonu lay amee simple bi noonu lay doon léegi yenn saa yi da ko teg si suuf certificat bi la bëgg jàpp dañuy ñëw créer la foofu na la waroo ko teg si suuf léegi même sukar bekk bi itam date bi niñ ko liggéey mu ngi mel tey nu may wax ak yow midi midi vingt wala midi cinquante xam nga heure bi ñu ko liggéey noonu ñoom si bi ah. date bi loolu lañ tay def waaw ay quatorze heures nangam lañ ko liggéey date bi tay tay nangam loolu waaye diñ ci def date crime bi xam nga dafa war a fay def loolu la fii amul date boo xam ne fa la war a primé baaxul xam nga loolu itam dañuy jàpp si loolu saa bu ñëwee fekk nga teg saako waaw yooyu yëpp waaw bu fekkee ne bitig yi waaw su fekkee bitig am na bitig yoo xam ne dañuy wut saaru dénk daal koy dal daal koy daal maam saaru nga boo ko tegee si suuf man naa yàq say saako da ngeen saaru dénk yooyu ngeen daaj ko. waaw ko ay saaru tàng daaj ko si place bi lépp teg moo gën. moo ñu doon si waaw waaw ñu bëri sax noonu la ñuy def waaye pour nit ñu jàppale ñu si saako yi bu mën a am tuwaay sax dina baax. parce que sécurité lay doon. parce que luy lekk li ñu def si lekk moom daanaka boo ko dee foofu te amul benn loo xam ne mën na ko porter pour mu mën a day dem si biir xam nga dafay danger. mais sukur sukur bekk si nan lañ si jàppee maanaam bu ñëwee fekk dat bi jeex wala. sukur bekk bi léegi maanaam xam nga dat ko photo envoyé la association lu ma mu ngi mel tey su fekkoon dara xam nga am na yoo xam ne ne dal bi dañ laa wax waaw deux mille ñoom deux mille vingt et bi ñu ko liggéey ah deux mille bi ñu ko def pare na waaw kay kon boo demaatee boo xoolee date bi xool fi nga nekk da xam ba xam jeex na am jeexul waaw jeex ba na dañ ko si war a def parce que deux mille vingt deux war a def war ñu def vingt et daal bu dee si vingt et bi lañ ko defar wurta jeex si vingt et bi ah, waaw ñoom bu ñëwee dañ laa wax na la kii dal bi jeex na parce que amul primé dal primé boo xam ne def nañ ko si suuf da ah, def seen oto dem ñun pare nañ ci ñu àggee dañuy bind ko avocat ñu jëm ñu ñu alamaan ñu fay seen alamaan dem ñan ñooy def loolu loolu soo bu fekkee diglu nga Sa Ndiogou dina leen wax nak naka ngeen war a def ba mucc ci loolu yi service bu mag bi daal bi ñu si a ah, man Kaolack service di seen ma jigéen jë waaw am benn jëmet parce bu may woo hmm. te man numéro bi man numéro yi li ma xam 77 76 75 waaw ak 70 ak 70 bii nag 72 la waaw la 72 ah. dafa am. 72 ah, waaw am na de alaaj du Sénégal de. ah am na du Sénégal non indicatif bi 221 Sénégal la Sénégal ah waaw ah. loolu yéeme na kat. ah man daal mi ngi nii di man ñun moo tax man su ma wooyee sax du ma ko ñemee décroché parce que dama naan lii. ah est-ce que du fee ñoo est-ce que du palais ba ñoo la soxla. palais ba palais ba 72. 72 mais. <laughs> mën nañu nekk gars yi bu ñu kiiyee nañ ñu envoyé message pour leeralal ma 72 man 72. alaaji bi nga jël rek. ah man kañ waa ji kañ man. jaar est-ce que du est-ce que du ma koo woo. ah oh, xam nga yow fii nga fi woote woon am ah? am problème am fi. Pérou ah? la Pérou. non bi nekk tappale nag alaaji. waaw. waaw alaaji woo ko alaaji woo ko. taxawal parce que jaaxal na ma. woo ko dese nañ deux minutes woo ko. ñu xool ba xam. xaaral ma ma téye bi om ma buñ kiiyee ma kii ko. direct la de waaw direct la de. alaaji na nga xam ne yéen a ngi direct nag. <coughs> fii de mel nekkul ci moom coupé na ma. occupé moom moo coupé. ki nee de am na xayoo la. ah luy am na xayoo xayoo. xayoo mooy la. xayoo la tudd non indicatif bi 221. ban dëkk la war am na. eh kii nee na de ah. Sénégal la. ah nee na côté Fouta la alaaji la. waaw kii nee na am na Fouta. waaw Fouta la nee na opérateur bu nekk Fouta. xayoo xayoo xayoo ñëw leen jommet. xoolal mi ngi woote waat. jël ko alaaji jël ko jëlal décroche allo. allo. waaw. waaw sëñ bi. waaye yow yow dafa nekk yaa may woowaat nii di soixante-douze. problème waaw man kat damaa jaaxle ci 72 am ma jaaxal waaw heure ba jeex na alaaji waa léegi man dinaa la déglu après après woo ma ci kanam de nga ok waaw kon alaaji léegi ximbiliku nga ah, alaaji ko dégg li nga ragalee ah, 72 ko moom. ah ay alaaji. heure bi daa jeex. waa élément bi de alaaji. service service d'hygiène 2021 2022. service d'hygiène non non mais c'est que loolu loolu loo heure bi jot na. jot na mais loolu kenn waru leen seen loolu. nañ bàyyi ba lundi. keroog ña a dem waaw dëgg de ok aywa euh, mi ngi noonu ko baax a baax moom Baye Assane Mesere daal di nag euh, gërëm ñoom Libi ak Zak euh, Pereira ci kër gi Théodore seen fête boobu la suba la defe naa ñu ngi leen di ñaanal bu baax la ñu woor lépp daal yàlla na nangu incha allah ma nee naa leen woon bu leen wori comme ñoom dañuy wori rek ñu jël wax dëgg yàlla mënoon ngeen a puusaat ba ci kanam te ngeen bàyyi xel nag daaw amu leen gàllax maanaam defaru leen gàllax ngeen double affaire bi daal xam ngeen li ma leen wax ma nga noonu ëpp maa ngi sama ginnaaw ak mbaxana mu rafet mi saa njógoon koy tooñ waaye ëpp ma macha allah mbaxana rafet na bu nee diis rek incha allah faat bi ñu jox leen journal bi juste après ngeen am oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. na ngëm gëm yi